na première euh, premier ministre du Sénégal euh, ba pare ci li nga xamante mooy élection législative yi jàll moom moo doon moom moo jiite woon moom moo def campagne bi yëpp pratiquement elle a fait le tour du Sénégal euh, ñu gis ni que après voilà y a frustration ba mu perte li nga xamante ne moom mooy siège am foofu ci assemblée nationale barki démb ci li nga xamante ne moom mooy meeting bi amoon ak APES su ma juumul dem na ñu gis ko mi ngi accolade ak ki nga xamant ne moom mooy six mois en arrière amul lu mu ko yekkul. Euh, man sax bii pour man du point parce que du moo ci sori trop. et pourquoi euh, moi je l'aime bien parce que c'est ma sœur. Mhm. je lui faut un respect euh, qu'elle me rend bien aussi. Mhm. vraiment en parlant du premier ministre Mimi Touré. Mm je pense que politique dafa war a ànd toujours ak euh, tempérance ak modération. Mhm. gis nga boo boo ci demee ak xol tu fais toujours des erreurs. pour moi elle est toujours dans le sillage d'une frustration justifiée non justifiée mais ki fekk que souvent am na acte yu muy posé yoo xam ne man bu ma ko doon conseillé man mm-hmm. Zato dinaa ko ne lii bu ko def comme par exemple la preuve aujourd'hui xam nga olof dafay wax ne ku wàññi ku wàcc sa ànd ànd boo yëg fekk borom mu toog mm. dama xool image u meeting bi mu demoon meeting bi meeting yeew yi bi mu demoon bi muy nuyu nit ñi dama doon xool la moquerie derrière des leaders de Yewwi qui se moquaient d'elle parce que <laughs> mais gars yi dans leur tête ça c'est c'est c'est c'est c'est presque le ridicule quoi. mais gis nga ne moom gay gay na foofu maanaam benn benn. gañewul euh, dara euh, gañewul maanaam benn benn sympathisant bi nga xamante moo di les les militants. non au contraire tu vois xaar xoolal. non si militants yi moo tax ma yow. non non non benn sympathisant wala militants yi. gis nga gis nga le plat en politique dafa am loo xam ne ça se mange chaud. dafa am loo xam ne sa c'est mon show nga des fois bu pënd bi wëree nii na teg nga calme tuuti parce que tey tout son discours tourne autour de quoi non au troisième mandat mais quand tu dis non au troisième mandat c'est vrai bu ko neexee sañ na ko yàggaguñu ci mandat mandat c'est le peuple qui le confère on na est pas encore arrivé à ce stade là voilà c'est le peuple qui confère le mandat loolu après élection lay doon mais je veux dire tey dégg naa su may dégg waa PDS ak ñeneen li ñuy wax ci moom moi mal et pour man dafa war a gën a am ay conseil dafa war a gën a am staff dafa war a gën a am ñoo xam ne ñoo koy yedd ci lu bëri parce que ñi ma gis les gens de Yewwi la ils n'en veulent pas et bu ñu dawalee ba ci kanam di ngeen xam li ma leen wax